abillahi min sheitan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatih al-khatim an-nas al-hadi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa radiyallahu ta'ala an ashab rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ayammat shaykh yuhduri lana bi hadha al-mahdari wal ta'atfi bi nadratin ta'ti lana bi zafari ñu ñëw léegi suñu darsu nasihatu incha allah euh, wax na ne waalam annama dakarnaahu baadul maamuraati wa baadul manhiyaat walam yumkin istifaau jamiha ginnaaw ndigal yi nga xamante ne ñu ngi ko daan tudd ci jikko yu ñu euh, xaraamal yu bon dégg nga ci yi ñu digle ak yi ñu tere yëpp ak yi nga xamante ne nag jotuñ ko woon a moom la leeral si lii ci lenn ci jikko yi euh, bi ci njëkk mu ne wa amal xillu fa huwa idmaaru l adawati wal intihaazu fursati amma xillu euh, xillu mooy lan mooy kiñaan goo gu nit denc waaw nit jël kiñaan denc ko ci xolam rek wala liñ naan alxeqdu xeqdu mooy eh, rancune mooy fayantoo comme nit ki li muy amee nit def lalu bon rek nga jàppal ko ci sa xol bi een waaw kay een mooy een loolu mooy xillu waaw mu ne loolu mooy noonoo boo xamante ne nit ki mu ko fas rek ci biir xolam bi rek dégg nga noonoo ko nit rek jàngate yow feeñaloo ko na danga koo noonoo di ko reyal di ko kafal di ko defal yenn yi te fekk li ngay def yi dara du ci dëgg boo sañoon kooku noonu du yendu tey yaa ngi dégg wala kooku du fanaan tey dégg nga wala kooku musiba dal ko tey ak yooyu yëpp yaa ngi dégg loolu mooy xillu mu ne loolu nag mooy nga feeñal ak noonoo yaa ngi dégg ak itam di yàq sa fursa dégg nga ci jamono jooju mu ne wa amal bax yu iraadatu zulmi beneen bi mooy mbewte mu ne loolu moom mooy nammeel ci tooñ rekk dégg nga mbewte doomu aadama warta bew am na ñoo xam ne nag beew daf leen yomb lool lool lool lool lépp luñ am dara rek ñu fàtte démb dégg nga buñ amee xaalis ñu fàtte démb ki leen daan dimbale ki leen daan yërëm ki leen daan teete ki leen daan tëg ci yoon bañ am xaalis ñu fàtte ko commencé di ànd ak ñoo xamante ne yaa ngi dégg ñi nga xamante ne dañ leen dañ ko daan dimbale sax dégg nga mu commencé di leen du mooy buñ ko woowee téléphone du leen faale gi demee noonu yooyu yëpp ci ka xeetu mbewte la bu fekkente ne ci wàllu xam-xam la itam même chose ñee gis doomu aadama ñu dimbale la ba nga am xam-xam ba nga dëgër ba nga mën a taxaw au que ña la daan dimbale wala ñi la daan jàngal wala ñi daan taxaw ba nga am xam-xam leen njukkal déedéet wala nga jàppee leen sa sëriñ déedéet parce que dañu wax ne man allamaka xarfan fa huwa euh, cheikhuka ku la xamal benn xaraf sax kooku sa sëriñ la kooku nag lañ tuddee cheikhu taalim mooy sëriñ bi nga xam ne moo la jàngal dégg nga kooku itam loo am am xam-xam waroo ko fàtte waaye waroo beew ci kanamam ndax kat imaam Shafii radiallahu anhu xaw ma imaam Malik ba muy lim sëriñam yi lim na ci benn sàmm boo xamante ne yaa ngi dégg dafa ñëwoon ba ci moom di ko laaj ci yoon saamu bi tegtal ko yoon mu ne saamu boobu yoon bam ko tegtal dégg nga kon bokk na ci sëriñam yi kon waxtu wu nekk nit ñi nañ ci bàyyi xel ci loolu moo tax mbewte baaxut nit ki loo mën a am fàttalikul ñi nga xamante ne dégg nga nañ laa dimbale dégg nga eh, beneen bi mu ne am amal richu fa qaala sallallahu alayhi wa sallam man ghashana fa laysa minna wa yutlaqu ala tadlisi wal xadiati wa kitmaanil aybi lan mooy richu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam richu mooy njublang waaw koo xamante ne yow wuruj rek njublang rek ci nga nekk di nax nit ñi rek di lekk seen alal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man ghashana fa laysa minna képp ku ñuy njublang bokkoo ci ñun yaa ngi dégg njublang nag dégg ma ñu bari xam nañ ko mooy waxtu nekk rek ñu ngi la fekk ngay wuruj doomu aadama yi dégg nga di jéem a teg diil yaa ngi dégg di dóore comme ni ko gaay naan dóor dóor marto bi ngeen xam muy njublang rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koy def rek bokkoo ci ñun dégg nga waaye tënk nañ la itam ci fen yaa ngi dégg ak lan ak eh, itam wuruj nañ moytu ko itam dénga nga ak fen waxtu nekk ay baag jàmbur itam nga koy nëbbu dégg nga nga bañ di di feeñal ay baag jàmbur foo toll koo xamal dara rek àdduna bi yëpp jot ci loolu moo nga ko beneen bi mooy lan mu ne wa sumaatu ak déggantu dégg nga fooñ la fekk rek yaa ngi déglu nit ki yaa ngi yurndu nit ki dégg nga di déglu lan lay wax yaa ngi dégg wala soo doon romb romb lu sax dégg ko muy wax nga wàññi sa tànk yi ngir mën a for li mu wax dara dégg nga loolu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo tere denga nga bàyyi leen déggantu dégg nga bàyyi leen di déglu nit ñi loolu nag lu am la ci jamono waaw kenn ku nekk yaa ngi jéem a dañ kumpa pour xam ci ni dara rek da nga nga waxal ko ko wala nga euh, euh, yóbbee ko ko penc ma loolu nag warut nekk moo tax mu ne wa sumaatu an yuxbira aw yafaaluhu li yusmaa bihi mu ne mooy dégg ñu euh, xibaar la dégg nga wala nga def loo xamante ne ngir ñu ngir ngir maanaam déglu ci loolu nag baaxut qaala sallallahu alayhi man sama man sama man képp koo xamante ne dégg nga yaa ngi dégg wala déggantu nga ngay fexe di ñëw di déglu nit la muy wax te loolu mooy espionnage mooy espionnage te loolu lu xew la ci jamono dégg nga internet bi yeeg yaa ngi dégg téléphone yeeg dégg nga ba léegi téléphone yaa ngi dégg espionnage mu ngi ci am na code boo xamante ne buñ ko defee ci sa téléphone dégg nga nit kooku lépp lum wax ci ci ci ci ci téléphone rek dégg nga dañ la koy transféré dégg nga nga koy nga koy dégg yow itam loolu yëpp lu jar a bàyyi xel la nekkut euh, lu baax doomu aadama itam ñu bàyyi ci xel dégg nga xool leen li xew ci jamono rek dégg nga tey nit mu nga fële ca Europe yaa ngi dégg ay doomu aadama film fi seeni i bopp def mu neen ba noppi ñu jël vidéo yooyu noonu dem di ko yónnee ka nekk ca Europe kooku nekk rek di ko publier dégg nga ci ci ci internet bi loolu dañ ko tere lu xaraam la lu bon la ki koy def itam na na ko wóor ne lu xaraam ak lu bon moom lay def yaa ngi dégg parce que mu ngi xaawi sutura doomu aadama yi te yàlla yonentu sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man satara insaanan satarahu llahu yawmal usra képp ku suturaal doomu aadama yàlla dina la suturaal ci bis bu jafee dégg nga kon nit ki waroo eh, eh, eh, am suturaay mën a am privé doomu aadama wala secret doomu aadama dégg nga nga jël profito ci loolu dégg nga di ko chantage yaa ngi dégg jël ay secret di ko divulguer yaa ngi dégg surtout ci réseaux sociaux yi ñu bëri xamuñ na réseaux sociaux boo ci sànnee dara àddina bi yëpp koo koy jotandoo dégg nga te loolu warut nekk nañ ko bàyyi lu xaraam la lu bon la dégg nga ku ko ku koy def itam na la wóor ne mujj gu ñaaw ngay mujj ku ko amul sikk di nga mujj mujj goo xam ne di nga rëccu yaa ngi dégg eh, eh, eh, la nga xam ne moom nga daan def dégg nga moo tax mu ne képp koo xam ne yaa ngi déggantu bu yomal xiyaama yàlla itam dina fexe dégg nga sama allahu bi yomal xiyaama dina fexe bañ dégg la dégg nga te loolu dégg nga amul sikk bu yomal xiyaama ñi nga xam ne waa safara lañ dinañ leen génn ci mbedd mi mboolem lañ daan def dégg nga dinañ leen ko won ci mbedd mi dégg nga yow ma mooy bis bi nga xamante ne euh, bakkan bu nekk dinañ la fay la nga daan def waa safara nag kenn du leen suturaal dañuy xawi seen sutura yi parce que dañ daan déggantu dégg nga te dañ daan xaawi sutura jàmbur yi dégg nga beneen bi mooy euh, wa amal buxlu dégg nga fa sababuhu al xawfu min al faqri dégg nga loolu mooy lan mooy nay wa amal buxlu nay fa sababuhu sababam alxawfu min al faqri mooy ragal ñàkk yaa ngi dégg ragal ñàkk rek moo yóbbee doomu aadama bi di nay nay nag baaxut wax nañ ko fii miraaran ay yoon yoon ñu ngi wax fii ci nay yonent bi waxoon na ne xaslataani laa yajtamiaani alal mumin al buxlu wa suul xulqi mu ne ñaari jikko yi doo ko fekk mukk ci ku gëm yàlla dégg foo ko fekk rek ci nit gëmu waxal ne gëmut yàlla mooy lan al buxlu nay nay foo ko fekk ci nit rek gëmut yàlla wa ak lan wa suul xulqi ak ñaaw jikko mu ne foo ko fekk rek ci nit gëmut yàlla ndax yonentu salaa salaam loolu la waxoon damaa ñëw ngir mottali jikko yu tedd yi kon waxtu woo ñaawee jikko yow bokkoo ci ñi denga nga yonent bi salaa salaam di àndal eh, nay yonent bi waxaan ne salaa salaam mu ne garab la boo xam ne bànqaasam yi képp ko ci jàpp safara la jëmee boromam mu ne tabe nag garab la goo xam ne bànqaasa mi képp ku ci jàpp rek aljana la jëmee boromam mu ne jaaxal na ma nag koo xamante ne la te moom dafa jàpp ci eh, garabu tabe dégg nga mu ne kooku jaaxal na ma mu ne waaye jaaxal na ma itam koo xam ne nee nañ jullit la te mu ngi jàpp ci bànqaasab nay garabu nay ci la jàpp dégg nga ñoom ñaar ñëpp <laughs> eh, dinañ wute fañ jëm de ku nga xamante ne dafa dafa dafa eh, weddi yàlla ne amut ba noppi mu nekk ku tabe kooku yor na jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégg te garab gi mooy dégg du ko yóbbu fenn fu dul aljana de dégg nga waaye ki nga xamante ne dégg dafa nekk jullit ba noppi mu jikkoo jikko xéefér te mooy lan nay su ko defee kooku itam mu ngi jàpp ci garab goo xam ne yaa ngi dégg ci safara la ko jëme de loolu nañ ci bàyyi xel dégg nga eh, moo tax mu ne eh, nay fa sababuhu sababam alxawfu min alfaqri mooy ragal ñàkk wa dawauhu mu ne liñ ko war a fajee nag liñ ko war a fajee mooy an nadaru fi qabaahi nafsihi mooy nga xool waxtu wu nekk ci say ñaawte fu bakkan doomu aadama dégg nga li ci gën a bëri ci bakkanam bi rek la topp bakkan bi moo bon rek dégg nga fexe nag ba mbonte bakkan gi yaa ngi dégg nga faj ko dégg nga euh, comme ni ko euh, euh, wali yàlla Cheikh Ahmadou Bamba doon waxee dégg nga wa dum ala nazaril aybi nafsika wa daawihi wa tubli fi rabbika mu ne na nga sax di xool sa ay baak bakkan te nga koy faj yaa ngi dégg te nga tuub dégg nga ngi ragal sa borom dégg nga su ko defee nay nag euh, mu ne feebar la boo xamante ne li ko war a faj mooy waxtu nekk ngay seetantal rek ngay xool sa mbonte euh, bakkan bi ñaawte fi nekk sa bakkan bi dégg nga mu ne wayta walladu anhul hasad mu ne nay nag dina juddoo ci moom kiñaan dégg nga iñaan dégg nga nay dina ko jur dina yàlla na yàlla mosoon ci loolu wa suxaak mbon wa taaddi ak di noonoo wala xas bu dégg nga ak bekkoor yooyu yëpp dégg nga eh, nay dina ko jur dégg nga su ko defee loolu nag yàlla na yàlla mosul ñu ci loolu noonu dégg nga nay baaxut dafay jur kiñaan dafay ñur jur mbon dafay jur nooneel waaye dafay ñur itam jur itam bekkoor loolu yàlla nañu ci yàlla musal su ko defee foofu la tënk nasiha bi dégg nga ñu bàyyi ba beneen incha allah allahumma salli ala sayyidina muhammadin haqqa qadrihi allahu allahu la ilaha illa allahu la ilaha illa allah la ilaha illa allahu allahu allahu dairatul fadli kuñ formé war ngay sant yàlla ñun lañ ci jël kese loo doon si di baram